une question très importante la diaspora sénégalaise yaa ngi naan xam nga ko bu baax cette diaspora c'est euh, non ce que nous avons jamais réussi à faire dans la diaspora c'est de l'économie mm-hmm. diaspora Sénégal on sait élire des députés on sait faire des associations on sait faire des kër Serigne des kër Maodo <laughs> on sait faire tout ça ce que nous n'avons toujours pas réussi c'est les passerelles de transition économique pour réorienter l'épargne de la diaspora pour financer le développement. Mmh. Et j'y viens. Et ça, je voudrais vraiment féliciter encore ce projet parce qu'ils ont cité deux choses. Ils veulent mettre un fonds patriotique d'investissement et un fonds retraite diaspora. Mamoudou, en fonds patriotique d'investissement d'abord. Voilà. En 2013, man mii di wax ak yow doon wër Europe. 2013 je parle à la télévision. Mm-hmm. di dem ay Italie ak Espagne di def ay conférence boobu banquier la directeur de banque jël sama xaalis bopp dem di dajale sénégalais yi biir Italie ak Espagne ne dañoo war a dajaloo pour def fonds solidaire de la diaspora je parle à la télévision donc quand je vois 11 ans après que les

financer l'économie maintenant de quoi s'agit-il on dit la banque mondiale mu ne africains yeeg immigrés yi nekk ci dëkk tubaab bi chaque année cinquante milliards de dollars la ñuy denc ci épargne ci banque tubaab bi. Hmm. maintenant l'enjeu de ce fonds c'est de lever l'épargne pas li ñuy yónnee pour ñuy dundee. Hmm, hmm, mooy que ne boo nekkee France boo nekkee France. yor dix denc ko ci compte épargne bi may jógee France dina fa nekk directeur banque compte d'épargne c'était rémunéré à nga jël 10 000 euros denc ko ci banque tubaab ba ñu la ciy fay chaque année 0,5 pour cent ñu ne la tey boo ko dugalee ci fonds d' investissement diaspora bi. Mhm. mën nga cee financer tey autoroute bi Sénégal war a defar wala port bu Sénégal war a defar wala chemin de fer bi war a dem Bamako ñu war ko defar nga dugal ko ci jënd li ñuy wax diaspora bond ñu fay la ci 7 pour cent. c' est bien beau mais est ce rek non non. pas du tout. parce mhm. que la question de la prévisibilité l'Éthiopie a lancé des diasporas bonnes. Mm-hmm. le Ghana a émis des diasporas bonnes. Euh, la diaspora juive Inde Chine ñoom ñëpp bu ñu bëggee financer yenn infrastructures yi ils font appel à leurs enfants qui sont dans le monde. Mm-hmm. donc imaginez tey bu ñu amee un fonds c'est-à-dire que ce qui nous manquait c'était des véhicules financiers on avait un fonds le FES qui existe toujours. je salue d'ailleurs ma sœur Nata pour financer des projets d'appui mais aujourd'hui on va aller sur bi mooy. aller là-bas dans les pays du Nord, avoir des licences de plein exercice, parce que les banques sénégalaises qui sont présentes là pour beaucoup, c'est des bureaux de représentation, ils comptent diaspora, ils ne peuvent pas diffuser des produits financiers. Mm -hmm. avoir un fonds qui lève l'épargne pour créer des passerelles de transition. Nous disons l'épargne, pas pour nous parce que ça va qu'on mhm. l'épargne. Mhm. imaginez tey si on levait chaque année dix millions d'euros sur le marché français épargne sénégalais mais avec dix millions d'euros ñu investir ko ici on peut financer des choses au lieu de dem leb tubaab bi c'est vrai voilà l'enjeu c'est on, on travaille avec notre propre argent on et mm-hmm. dans le projet ils l'ont écrit c'est pour rep diminuer la dépendance aux investissements hmm. internationaux. mieux encore dette bi mieux parce que le service de la dette nous étouffe. tout le hmm. monde le sait mieux encore ñu ne dañuy def fonds retraite diaspora. qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la question de la réversion des pensions dans beaucoup de pays on exige sénégalais yi nga xam ne nekk nañ fa liggéey pendant ans retraité ñu war exiler nga toog fa plus de six mois ci dëkk pour ñu fay la sa impôt. donc après avoir yi euh, ci seen dëkk yi il faut nga nekk fa pour bénéficier wu alors si nous aujourd'hui le Sénégal a une intelligence ñu ne dañu bëgg a def un fonds retraite diaspora au lieu ngay jël sa xaalis di ko denc ci banques yi nga def ko ci fonds yi comme les fonds de pension américaines mais ces fonds de pension là après qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il faudra faire c'est de l'ingénierie financière mm-hmm. chaque matin Mamadou à la bourse régionale des valeurs mobilières de la Abidjan la BRVM chaque matin s'échange là-bas des actions des entreprises sénégalaises entreprise yu mag yi nekk fii yëpp côté ci bourse bi ay tubaab ñooy jënd action yi la diaspora n'est pas au courant donc créer un fonds d'investissement permettra demain aux Sénégalais qui sont dans la diaspora aux États-Unis en Europe en Chine partout dans le monde ñu mën leen a créer ay passerelle ay véhicules financiers bu ñu bëggee jënd ay action euh, entreprise Sénégal yi côté ci bourse Abidjan bi jënd ko ñu jël seen xaalis dugal ko ci financer li financer Sénégal ba pare ñu mën di fayee ko 6 7 pour cent. Mm-hmm. parce que c' des bons de trésor <coughs> qui sont garantis par la banque centrale c'est-à-dire que c'est une garantie parce que c'est la banque centrale qui garantit c'est des bons de trésor. Mm-hmm. et donc loolu moi je l'ai lu. dans ce projet-là ñu bind ko ci et comme je dis moi depuis presque quinze ans je parcours la diaspora pour défendre ça pendant les cinq ans où je suis resté au ministère des Affaires étrangères télé laay waxee j'ai fait des notes dans tous les sens et aujourd'hui je suis heureux de voir que c'est une priorité des nouvelles autorités mais loolu Mamadou man sama axulaayu taala li nga xam ne maa ngi doon wër di ko def tey si j'ai la possibilité ne serait-ce que une petite goutte d'eau d'y apporter ma mm-hmm. modeste mmh, contribution ouais, pour le Sénégal je le ferai et je dois le faire et ça je l'ai déjà dit à la nouvelle ministre des Affaires étrangères et au secrétaire d'État chargé des Sénégal l'extérieur mm-hmm. man wàllu diaspora ak lu avancel diaspora Sénégal fu ma ci nit oo dinaa ko parce que bi may jóg di ko def il y a quinze vingt boobu sama xaalis bopp laa yoroon. Mm-hmm. boobu j'étais nommé nulle part ma nekk euh, di liggéey ci banque di jël samay oto di taal di luwee samay réservation di dugg avion dem ci àddu bi toog sénégalais di naan kaay ñu waxtaanee mm-hmm. nu ñu mën a def pour traiter suñu diaspora donc c'est une opportunité historique à saisir et ça nous permettra parce que les flux de la diaspora sont contracycliques malgré les crises internationales les envois continuent d'augmenter. ça mm-hmm. veut dire que ak lu mën a xew immigré yi gàcce ngaalaama c'est le lieu aussi de les féliciter donc il faut que les gens comprennent que au-delà de l'action politique la diaspora sénégalaise est très vaillante fait beaucoup de choses loolu woo ci gouvernement bi passe aussi bi fond Covid bi amee il faut aussi saluer cette initiative de l'ancien régime du président Macky Sall d'avoir pris mille milliards dans les milliards et de donner de l'argent